mbokki internet yi dalee nag jàmm li ñuy wax nag tontu du forox moom mi ne sax ki nga xam ne moo di Seydi Gassama daal daal di amal gannaaw nag génnuk njiitu réew mi Macky Sall nak ci entretien wala sax ci émission yoon wi nga xam ne dalaloon nañ ko fa foofu ci RFM bisub Korité ba nag ca ngoon ga ca jonoom ki nga xamante ni moo di El Hadji Assane moom njiitu réew mi Macky Sall nag di wax ne fële ci Sénégal da bañ ko laajee lu jëm ci ñi nga xam ne ñu ngi leen teg loxo ñu ngi di duppe ay détenu politique moom nag la mu tontu rek moo di ay détenu politique amul fële ci Sénégal daal ñi nga xam ne nag teg nañ leen loxo dafa nekk nit ñoo xamante ni dañoo wàcc yoon def ñaawteef mënuñu bàyyi nit ñi nag ñu nekk def lu leen neex loolu waral yoon def liggéey waaye amul benn yoon eh, li nga xamante ni mooy détenu politique ku ñu fi jàpp ndeg sa opinion eh, politique wax sa xelaat wala sax ci appartenance politique rek eh, tax ñu jàpp la lu di kàddu nga xam ne moom njiitu réew Macky Sall moo ngi ko déclaré ci émission boobee waaye nag ba mu waxee loolee rek ki nga xam ne moo di directeur exécutif bu Amnesty International fii ci Sénégal nag moom dencut làmmiñam ci poosam ndax nag ca saasa rek la moom mi di Seydi Gassama daal xam ne moo di mi Macky Sall nag di na ko. Euh, jamono jile ñi nga xam ne euh, ñu ngi ci prison yi tëdd fa te nag ñoom ñooñu ñu bëri sax lu ci bëri ñoo bokk benn parti politique bu ñu bokk mooy sax bi di Pastef donte le moom mi ni di Seydi Gassama tudd ko waaye ñu ci bëri daal bokk nañ ca parti boobee ci li nga xam ne moom la ko nit ñi di moom nag la def ci tudd bi rek mooy nee na ko euh, monsieur le président Macky Sall nag ñu bëri ci doomu aadama yi nga xam ne jamono jile ñu ngi ci prison yi Sénégal yi tëdd fa nag ñoom nekkuñ nit ñu nga xamante ni dañaa taal wala ñu sàcc wala sax ñu jaxat jaxatee comme ni nga xam ne noonu nga ko waxee ci émission boobee waaye dafa nekk nit ñoo xamante ni ah, daanaka daal ñoom ñëpp ñëw la ñu ci ëpp bokk ñëw bokk benn parti politique bu ñu nekk loolu nag wala ñu ne di duppee ay prisonniers politiques donte la moom ñu di ñuy turame Macky Sall sax daf ko daal di eh, nii dax ko ba mu seet nee nag fële ci Sénégal amul kenn ku nga xamante ni ah, dañ la fee teg loxo ngir mbirum politique wala sax nee na terme bi dafa nekk lu maanaam. détenu politique mooy nit ku nga xamante ni dañ ko jàpp teg ko loxo ngir xalaatam ci politique wala sax opinion bu nga xamante ni exprimé na ko ci tolluwaayu réew mi ak doxinu réew mi na loolu nag amul fële ci Sénégal ndax Sénégal réewum démocratie la nit ñi ñu ngi wax seen xalaat nañu ko bëggee waaye nag dafa fekk ne rek du ñu bàyyi nit ñi ñuy nekk di def lu leen neex di taal ak sàcc ak yàqate jaxat-jaxate donc ñi nga xam ne ñoo tëdd ci prison yi rek amul benn détenu politique waaye nit ñoo xam ne dañoo wàcc yoon rek ñu daal di cee loolu di kàddu yi njiit réew mi yëkkati ci janoom ak El Hadj Assane Gueye émission bi la ci yoon yi foofu ci RFM ci ngoonu la ko korite ga waaye nag Sénégal yu bëri génn nañu àddu ci lu ñu mel noonu la ko kii di Seydi Gassama defee moom tontu ko ne ko nag mi neexul ba neexul waaye ñi tëdd ci prison bëri ci loolu sax jamono jëlee ñi ñu duppee prison politique prisonnier politique ñu ci bëri ñoo bokk benn parti bu nga xam ne foofu la ñu bokk kon nag mënuñu leen duppee lu dul ay prisonnier kii di El Hadj